waa métti na moom parce que euh, da ngay xëy le jour rek ñu ne la gasoil manqué na xam nga tey ji bu fekkee solo woon gasoil war a yoro plein tamit da ngay sonn loolu quoi mais nañ fexe daal ba mun yokk gasoil parce que dëkk bi ni mel nii tamit buñ ci boolee yokk gasoil day gën a métti loolu la quoi. buñ ko yokkoon yan jafe-jafe la leen andil. non dina bëri moom parce que euh, paas bi fii rek chaque jour client yi dañuy kaas. naa seet paas bi dafa seer yooyu mais tamit paas bi essence bi même bu ñu yokkee gaz wala tamit mënuñoo yokk paas bi kon dèjà ñun lay rey rek paas bi essence bi 150 non boobaa dañuy perte mais tamit xam nga rek mënuñoo toog boobaa moom xam nga rek luy metti moom si ñu si ñun lay dal quoi. parce que xam nga yenn saa loolu lu koy waral mooy gasoil bi day yokk mais tamit essence bi paas bi mënoo koo yokk parce que boo ko fi yokkee tamit clients yi dañuy dem bàyyi yow boobaa tamit li ngay def mooy da ngay obligé bàyyi paas bi rek fi mu nekkoon même bu fekkee gasoil dafa dañ koo yokk tamit da nga bàyyi foofu rek yow moom yow yow yaay gaañu. met na ci ñun waa ci suba ba nii moom lay jàmmat depuis démb bañ ko déggee ba léegi nii mu doon lu ñu met nag lu ñu naqarlu lu euh, euh, ndax lii fan jëm ñun mooy yokk gasoil bi te loolu enragé wuñu comme li ko kii waxee suñu bàyyi mi parce que euh, bu ñu yokkee gasoil ñun mun ñoo yokk suñ paas parce ñun corona ba dañoo yokkoon suñ paas ba ñu ngi ko ciy dégg te am na di ganim client yoo xam ne sax bu ñu ñëwee da ngay rayante ak ñoom mais duñ fay fay 150 yi parce parce que bu ñu yokkee gasoil bi yokk te 150 yi dañ koy am rek loolu dañ nañ ko ci kon xam nga ñun bu ñu xëyee yokkal ñu gasoil ñu xëy xëy rek day métti ñun trop quoi mu mu doon lu ñu métti daal moom waaw ñuy ñaan waaw ñu jàppale ñu ci bu baax a baax ba gasoil bi fa mu nekkoon même bu fekkee mënuñ cee wàññil toll ak tarafaatu xay ni sax ñu bañ ko yokk quoi ñu ñu ñu ñu nekk fa nekkoon quoi ñun chaque jour dañoo war a xool li yi bëgg chaque jour dañoo war a xool li neex client yi mais parce que bu fekkee def bu fekkee da ngay xëy di yokk say paas client yi kaas ñu xëy yokk gasoil waa ñu xëy yokk gasoil gasoil daa nga sol 7000 di xëy 3 journée yan saa yi nga xëy nga sol 6000 xëy ci 2 journée xaaj xam nga bu ñu xëyee yokk gasoil bi ngay jënd ay 7000 yoo xam ne doo ci mën a xëy deux journées yu mat te doo ci mën a liggéey 10 000 wala kee wala 11 000 yu mat xam nga loolu dafa euh, dafa xaw a kii liiwut waaw mais affaire bi daal mett na moom moom moom lii ñun moom li ñu war a ñaan rek mooy ñu bañ ñu ko yokkal waa comme que mënuñu koo wàññil parce que sëfoor euh, sëfoor kaas na lu ne yàgg naa kaas lu ne sëfoor lu ne def na ko mais lii moom da cee raw que yokk gasoil bi enragé wuñu sant nañ ko de moom parce que comme que ci la ñuy liggéey moom bu manqué rek day xaw a indi ay jafe-jafe waaw benn instant nag sant nañ ko daal. d'accord euh, wàllu yokk bi ñenn ñi nee nañ dañ koy day mel dafay manqué pour gars yi bëgg fa jaaree prox ndollu pour yokk ko bu ñu ko yokkoon tey aussi nag dañ di jafe-jafe de. waaw noonu lay demee noonu lay demee de tout le temps noonu lay demee rek dañuy dañuy xaar rupture am rek ñu daal di euh, profité dugal seen i bagage bu manqué moom bu manqué moom faw mu yokk te bu yokkee tamit nañ ko yëg. bu yokkoo benn yan yan conséquence lay am si seen liggéey yan répercussion euh, day sonal dañuy sonal ñun ñu yor oto yi dañuy sonol parce que client yi client yi ci oto yi dañu yaakaar client yi oto la ñuy jël di dox di dox seen soxla di ñibbi wala bu ñuy xëy wala bu ñu am tamit course bu ndaw oto ngay jël mais tey bu caméra bi yokkee tey day feeñ waaw day feeñ day feeñ dañuy sonal ñu nag yokk paas ak yooyu xam nga rek te loo xamante ni daal. mën naa ñàkk daal waaw mën naa ñàkk. non gasoil bi kay ñu ne saa yi danay ñaan yàlla bu wàññeeku waaw saa yi moom six cent cinquante cinq yi moom seer métti na trop waaw ndax parce que ay soos set mi lay dix litres la am waaw. bu yokk woon tey yan jafe-jafe lay andi ci liggéey bi. non dina gën a métti moom suñ côté moom ndax xam rek gasoil jamono ji li ñuy li ñuy rek mooy loolu dafa métti jamono ji